internet euh, téléspectateur yu télé Sénégal ravi de vous retrouver niñ koy euh, ànd ak yéen saa su nekk euh, si seen ay jotaayu waxtaan ni kii tey ñoo fas yéene ànd ak yéen ci seen émission entretien fas yéene ci ànd ak nga xamante ni ma di Diamane Gueye Diamane Gueye nekk activiste nekk également coordinateur national du mouvement espoir et transparence moom la ñuy fas yéene àndal ci li nga xamante moom moo di waxtaan bi entretien ñu dellusiwaat ci li nga moom mooy solos li nga xamante moom moo di mouvement boobule monsieur Guèye ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di la dalal ci télé Sénégal bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yi. waaw monsieur ñu ngi lay fay. di rafetlu aussi euh, tawaay bi tey fii nii. Mm-hmm. waaw baax ñu lay fay bu baax. Mm-hmm. ñu ñu doree waxtaan bi ak euh, li nga xamante ni moom moo jëm ci ci mouvement bi yow nga nekk euh, coordinateur euh, mouvement bi ngeen duppeeku mouvement national mu nekk mouvement national boo xamante ni yéen a ko duppee mouvement espoir et transparence pourquoi espoir et transparence oui mouvement bi mu ngi tudd mouvement espoir et transparence mm. boo gisee aussi ñu tuddee ko mouvement espoir et transparence mm. parce que tey euh, dafa nekk mouvement boo xamante ne. Mm. ay jeunes ñoo ko créer mm. raison pour laquelle ñu tuddee ko mouvement espoir et transparence mm. parce que espoir munoo ko wax te waxoo jeunesse. ak transparence aussi raison pour laquelle ñu ne pourquoi pas ñu tuddee ko espoir et transparence parce que transparence aussi ci waru leeral la. parce que jeunesse aussi boo nekkee jeune aussi da nga war a leeral. ci leeral boobu noonu lañ fukkandiku pour mun koo tuddee transparence aussi. espoir ci ci ci naka da ngeen jàpp ne euh, cette jeunesse amatul espoir euh, par rapport ak politique publique yi wala lu tax moo moo moo espoir bi. way euh, du question jeunesse bi amul espoir sax. Mm. boo gisee ñu tuddoo ko espoir parce que dañoo jàpp ne réew mi jeune jeunes yi ñoo ko yore. Mm-hmm. te jeune aussi nekk na koo xamante ne tey lépp lu mu dugg rek mun na cee génn. Mm-hmm. surtout dans les réalités. Mm-hmm. parce que espoir moom dama jàpp ne jeunesse. munoo ko cee génne mhm. moo ci ëpp pour bi tey bu noonu à cent pour cent. Mhm. presque mun nga wax ne soixante quinze pour cent yëpp. Mhm. wala soixante seize pour cent yëpp euh, espoir bi si jeunesse bi la. moo tax ñu préférer espoir. Euh, yaa ngi koy wax ne nga euh, espoir bi c'est c'est jeunesse souvent on a l'habitude de dire que euh, la jeunesse est, est l'espoir de de demain tey nan ngeen au ni au sein du mouvement ban taxawaay la ci ndaw ñi am et puis lan mooy mébatu li nga xamante ni mooy mouvement bi. waaw mouvement bi tey euh, taxawaay bi ñu ci am mooy euh, dafa nekk loo xamante ne bi ko créé aussi euh, dafa nekk initiative boo xamante ne dañoo bëgg d'ici quelques mois wala quelque années. mu nekk loo xamante ne aussi képp koy xamante ne ndaw réew nga rek da nga ciy gis sa bopp. tey tey fan la mouvement bi fan la mouvement bi sosoo ak ñan ak ñan ñoom ñoo taxawal li nga xamante ni moom moo di moom moo di mouvement boobu lee mm, mouvement bi d'abord ñu ko sas mooy euh, ay étudiants. ñoo xamante ne dañoo am seen diplôme. Mhm. Euh, di toog di some ak ñoo xamante ne ñu ngi def seen formation am ñoo xamante ne aussi euh, ñu ngi ay étudiants lañ di jàng université. Mhm. ñoo ŋànk boole def mouvement bi. Mhm. mouvement bi fan la soso mouvement mu ngi sosoo ci euh, Kaolack Kaolack mm. siège bi Kaolack. foofu mooy mooy foofu mooy base bi quoi. base bi foofu mais mouvement c' au niveau. au niveau national c' est au niveau national oui. voilà y' a des y' a des a des jeunes bokk ci ci ci mouvement euh, parce que tey mouvement bi euh, boo jëlee presque je pense que les onze yi nga xamante ne dans les quatorze les onze am nañ fa ay. responsable yoo xamante ne ñoo ñu fa nekkal pour mouvement bi mm-hmm. parce que bon boo jëlee Saint-Louis par exemple euh, am na fa yaa a y' a dans les régions aussi. Mm-hmm. oui. Euh, euh, pourquoi mouvement bi ngeen jàpp ne c' mouvement boo xamante ni dafa war a nekk mouvement apolitique étant donné que en général dañoo gis mouvement yu bëri yoo xamante ni bu ñu leen di sos dañ naan mouvement apolitique lañ mais au fur et à mesure forcément politique dugg ci biir parce que li ngeen di bëgg di def si ay actions yooyu forcément y aura des politiques yoo xamante ni dinañ ñu accompagner leen ci li nga xamante moo di waaw ba tey li nga wax mm-hmm. euh, bañu ma ko sax mais le mouvement si apolitique mm-hmm. parce que luñ ci jublu mm-hmm. du question politique maanaam luñ ci jublu mooy d'abord euh, dénoncer l'injustice sociale comme objectif boobu noonu te loolu euh, bon dëgg la politique parfois dañ koy dugal ci wàllu boobu noonu mais ñun parewuñu pour loolu parce que boo jëlee dénoncer l'injustice sociale am na pàcc yoo xamante ne ci biir euh, ak politique du benn. comme par exemple tey problème foie yi boo demee ci kër yi. problème boo xamante ne moo fa ne. ñu war koo régler. loolu xam nga du politique. te loolu aussi euh, dañuy taxaw pour mun a orienter loolu. même bu nekkee euh, dañ koy orienter pour yoon mun cee am walla pour mun ko lijjante. ñu def ko. parce que loolu je pense que du politique. ci ci ci ngeen koy nan ngeen koy defee dafa am ñoo xamante ni ñoom ñooy chargé wu sa domaine wala euh, dafa am euh, un groupement boo xamante nii moom ngeen di délégué ces ces pouvoir la. oui xam nga bépp association wala mouvement boo jël. am na ñoo xamante ne ci lii la ñu spécialisé wu ñii spécialisé si parce que ci biir mouvement bi am na ñoo xamante ne. xam nañ politique am na ñoo xamante ne xam nañ wàllu juridique am ñoo xamante ne aussi beneen pàcc lañ xam moo tax dañoo préféré aussi euh, ñoo ñu nga xamante ne xam nañu pàcc boobu noonu aussi ñu jox leen sas boobu noonu bu ko defee ñoom dañuy wàcc sur le terrain mmh. jéem a xam liy xew ci ci dëkk bi surtout dans les villages mmh. yaa ngi koy wax sànq ne nga mouvement bi y a des euh, ñu ko composé am na ci des étudiants yoo xamante ni euh, ils sont am na ñoo xamante ni également euh, c'est des jeunes yoo xam ne amuñu amuñu emploi tey lan moo war a nekk taxawaayu mouvement bi ci côté ces ces ces jeunes là ces ces étudiants là pour accompagner leen par rapport ak li nga xamante ni loolu ñu war a def ba trouver un emploi. ok côté boobu noonu parce que boo jëlee ci objectif yi. Mm. Euh, dañuy wax foofu noonu aider les zones à trouver un emploi mhm. man mi wax ak yow nii damay descendre sur le terrain mhm. damay dem ci entreprise yi damay dem ci société yi rien que pour un partenariat avec les sociétés mhm. parce que loolu moo ñuy permettre aussi ñu mun a euh, orienter jeunesse bi parce que daa am loo xamante ne parfois dañ koy gis Sénégal euh, ba jëlee wàllu plateau yi walla ci wàllu plateforme yi parfois da ngay connecté wu gis euh, benn affiche boo xamante ne dañ lay wax offre d'emploi la mhm. mais après loolu lan lay jur da da ngay postuler wala nga remplir sa formulaire mhm. mais da ngay doog deux jours wala trois jours nga gis ne li ki am ku la woo wala am ku la woo ne la bonjour monsieur tel tel tel mhm. ah dañ laa soxla lii ak lii wala mu nekk koo xamante ne du doon sénégalais moo tax réalité boobu noonu ma dund ko man mii toog. Mhm. am ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi ci euh, ci sous région bi dund ko. Mhm. ñu ne pour quoi pas nag ñun ñu wàcc sur le terrain. Mhm. bu ko defee ñi nga xamante ne am nañ possibilité pour dem sur le terrain jéem a indi la réalité. buñ ko defee loolu bu ñu ñëwee dañ koy dañ koy euh, postuler directement ci groupe WhatsApp bi. bu ko defee ñoom ñu mun a postuler. Euh, euh, par rapport ak li nga xamante ni moo jëm ci euh, recrutement d'emploi yi ak yooyu noonu dafa am peut-être ay ñoo xamante ni souvent comme ni nga ko waxee ay arnaque yoo xamante ni daf ci daf ci am moom moo tax ngeen jël cette initiative là exactement parce que loolu dafa bari Sénégal te loolu dañ koy xeex léegi dañoo bëgg loolu noonu mënuñu wax ne dana deñ à cent pour cent mais d'ici un an wala deux ans dañoo bëgg loolu noonu mu jéem a wàññeeku ci réew mi mm-hmm. parce que loolu dafay bari trop ci seen objectif yi yaa ngi wax dénoncer l'injustice sociale loolu dafa bokk ci ci ci injustice sociale bi nga xam ne ni jàpp ngeen ne dafa dafa am ci réew mi. waaw injustice am na ci réew mi bari na fi sax bari na fi trop. comme tey euh, boo jëlee par exemple tey nit ñi lu ñuy dund. ak lu ñuy wax. c'est pas la te loolu aussi il faut que euh, ñi nga xamante ne am nañ xam-xam ci côté boobu. ñu wax ci. boo jëlee mouvement bi am na ñoo xamante ne jàng nañ loolu. wàllu wàllu wàllu droit ñooñu aussi dañuy indi seen xalaat parce que leneen dafa am problème suñ problème mooy euh, dañuy fate euh, jeunesse bi parce que euh, Sénégal jeunesse d'abord même dans tous les pays jeunesse première ressource jeunesse la te loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax jeunesse bi bu taxawee rek lu mu bëgg rek day am yaa ngi yaa ngi koy wax euh, jeunesse bu taxawee lu mu bëgg da koy da koy da koy am euh, est-ce que tey yéen au sein mouvement am na ci euh, yoo xamante ni yéen a ngi koy def pour am benn approche par rapport ak yenn ci politique de jeunesse yoo xamante ni teg nañ ko étant donné que mouvement jeune la am na ci ñoo xam ne amuñu liggéey est-ce que tey yéen ngi am approche ci yenn politique de jeunesse yi ñu teg lu mel ne ay DER ay ay ay ay ay fonds GIEC ak yooyu pour mën a am des des des des autofinancement da ngeen ci mën a da ngeen ci mën a jàppale ndaw ñi. waaw côté bu baax a baax. mais pour l'instant nag euh, antoogul mais ñu ngi ci ñu ngi ci bu baax a baax. waaw. yaa ngi yaa ngi si seen biir programme ba léegi maa ngi gis ngeen ngeen wax ne euh, vous luttez également contre la transparence euh, dans le domaine politico politico religieux lan ngeen bëgg a expliquer foofu. foofu noonu boo gisee ñu wax la transparence dans le domaine politico religieux mm-hmm. parce que tey parfois ñun Sénégal dañoo am benn problème boo xamante ne. mu ñu bëgg a doole muy Euh, politique. politique euh, kenn mënu ko bañ ci réew parce que en vraie vie euh, politique nekk na loo xamante ne bu dañee ci réew pour réew mi mun a taxaw sax day am problème. parce que politique moom il faut que mu am ci réew. mais aussi la la religion comme ni ñu koy waxee rek exemple c'est un dogme c'est une vérité indiscutable. mais euh, loolu aussi nekk na euh, réalité boo xamante ne waruñ koo jël aussi euh, boole ko ak ak ak ak ak politique. parce que religion boo jëlee par exemple tey li gën a baax ci suñu aada ak suñu cosaan. ci religion ci reli maanaam am na lii ak religion. loolu nag waruñu koo fooyee. mais dans la religion il y la politique aussi. il y mais euh, c'est pas à 100 pour cent. te waruñu koo mettre à 100 pour cent te boo ko seetloo aussi loolu mu ñuy salfaañe bu baax a baax surtout la jeunesse. te politique euh, lu noble la. Mhm. parce que c' est là de bien gérer mhm. donc loolu aussi war waruñ koo fooyee mais nañ ko mettre en place. Mhm. place boo xamante ne place am lay nekk. Euh, religion aussi ñu mettre ko en place. kon da ngeen jàpp ne tey euh, politique bi ak euh, ak li nga xamante ni moom moo jëm ci ci ci wàllu religion bi dafa nekk deux choses yoo xamante dañ ko dañ ko war a dissocier étant donné que gis nañ même ci espace politique yi souvent suñu ay religieux yenn ci ay kàddu yoo xam ne dañ koy yëkkati di leen di ko di ko teg ci seen seen kaw est-ce que tey mouvement bi ci ci ci yooyu loolu mouvement mu ngi ciy taxaw pour pour mën a défendre ces ces religieux la waaw mouvement bi mu ciy taxaw. parce que dans le mouvement aussi am na ñoo xamante ne ci wàllu religion la ñuy yëngu mm-hmm. moo tax aussi ñu insérer ko ci parce que comme ni ma la ko waxee rek gis nga mouvement boo gis am na ñoo xamante ne euh, dañuy mënee fii ñuy mënee fii mm-hmm. bu leen bu ngeen booloo nag après bu nekkee li ngeen di wax aussi dëgg la mm-hmm. te c'est la vraie vie aussi day day am day day day day day day avancé mouvement mouvement de l'espoir et et, et, et transparence euh, transparence ci ci ci lan ci ci gestion politique wala ci ci gestion des affaires de la de la cité euh, wala ci ci ci lan exactement ngeen bëgg presque dans tous les domaines dans tous les domaines mhm. dans tous les parce que ñun moom dañoo pare lépp loo xamante ne du yoon dañ koy dénoncer lépp loo xamante ne du yoon dañuy taxaw dénoncer ko mhm. mais nag dañuy fekk aussi ñu am ci loo xamante ne c'est clair mhm. parce que nit ki aussi booy donoo si dara na fekk loo xamante ne am nga ci ay renseignements yu leer. Mhm. Euh, tey euh, gis nañu euh, ki nga xamante ni moom mooy moom mooy président wax lu jëm ci ay lanceur direct d'alerte ak yooyu kon yéen mën nañu jàpp ne yéen man ngeen a nekk un exemple boo au cas où ngeen gis loo xamante ni jàpp ngeen ne lii xëy na lu gouvernement bi fi nekkoon defoon la lu baaxul la ngeen mën ci àddu joxe ci ay ay ay ay firnde par rapport ak loolu. Ah, bien sûr gisee loo xamante ne moom. méngoowul ak li nga xamante ne moom la texte loi wax moom dañ koy dénoncer. ci biir objectif bi ba tey euh, yéen a ngi wax aider les femmes dans le domaine agronomique taxawaay bi ban ban ban ban ban pàcc la war a doon ci ci ci jigéen ñi ci ci mouvement bi. waaw euh, côté boobu aussi euh, lu am importance la. parce que agronomie aussi agriculture dafa nekk activité boo xamante ne mhm. euh, presque mun nañu wax ne bu réew bu ko amul rek day am problème mhm. day soox donc ñu ne pourquoi pas aussi ñu insérer partie boobu noonu mhm. parce que tey dans le mouvement y a des techniciens agronomes yoo xamante ne dañoo def trois ans de formation te amuñu liggéey wala am ñoo xamante ne am nañ liggéey mais demeewul noonu ñu ne pourquoi pas aussi comme am na jigéen ñoo xamante ñu yëngu ci wàllu agronomie bi aussi ñu ne léegi dañuy metre en place li nga xamante ne mooy domaine boobu noonu buñ ko defee. Mhm. daf ñuy permettre ñi nga xamante ne jàng nañ agronomie ce sont des techniciens en agronomie. Mhm. ñuy dem sur le terrain parce que tey parfois euh, maladies yu bëree bëri ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dal nit ñi aussi. Mhm. li koy waral mooy euh, problème alimentation bi. parce que tey da ngay gis euh, par exemple tey si àll yi surtout. fi nga xamante foofu la ñuy béyee. da ngay gis ñoo xamante ne amuñu formation. dañuy ñëw directement jàmbat ni garab wala ay def quelques maraîchage yooyu noonu. bu demee bay meññ ñu commencé di koy euh, produit mhm. di koy produire après bu amee quelque quelque quelques quelques jours. Mhm. ñu dindi loolu dem togg ko. Mhm. te loolu aussi day indi ay feebar. ñu ne pourquoi pas aussi comme am na ñoo xamante ne jàng nañ euh, côté boobu noonu aussi. bu ñu ko defee dañuy wàcc sur le terrain di dem dans les villages aussi même dans les communes di sensibiliser jigéen ñi nga xamante ñu ngi accompagner leen dans la formation et dans la mise en œuvre exactement mhm. ñu ne pourquoi pas ñu def loolu mhm. Euh, tey mouvement bi euh, ñi nga xamante ni bëgg nañ ci bëgg nañ ci bokk au niveau au niveau national euh, lan mooy nekk modalité yi dafa am foo war a jaar pour pour mën a am accès ci li nga xamante ni moo di moo di mouvement bi dafa am des membre yoo xamante ni mouvement bi daf koy installé wala dafa am loo xamante ni foofu nga war a jaar pour pour mën a am accès ci li nga xamante ni moo di bi. am si accès c'est pas du tout difficile. si fii boo amee carte membre rek mun nga bokk. parce que ñun newuñ fii pour suñu bopp. pour Sénégal moo moo moo ñu ñor donc képp koo xamante ni yaa ngi fi bëgg bokk rek boo amee carte membre rek da ngay bokk. tey lan mooy les axes prioritaires yi nga xamante ni mouvement bi bëgg na ci sóobu euh, pour taxaw ci euh, carrément ci la li nga xamante ni moom mooy moom mooy objectif objectif mouvement bi. si euh, boobu aussi damay ñëw ci wàllu la gestion di personnel. Mm-hmm. parce que tey dañoo gis ne aussi. Sénégal euh, problème boobu la nam mooy problème euh, ressources humaines parfois boo demee si entreprise yi surtout euh, ci entreprise yoo xamante ne dañuy Sinwaa ñoo koy moom fii nii. Mhm. dañuy gis problème boo xamante ne bon day day day lay jaaxal sa. Mhm. comme par exemple man mii di wax ak yow nii mhm. dem naa ci benn entreprise di déposé samay CV mais. li ma fa gis euh, c'est extraordinaire parce que premièrement bu ma ñëwee ci li nga xamante ne mooy euh, gardien bi dama ko jox sama CV bi mais bu mu liiree CV bi aussi après daf ma delluwaat CV bi côté boobu moo tax ma dénoncé côté boobu la gestion du personnel entreprise yi aussi dañoo war a bàyyi loolu xel gestion du personnel ñi nga xamante ñooy gérer gérer wàllu RH euh, bi ñooñu aussi jël seen responsabilité mmh. parce que tey mënoo tey yow nga doon étudiant. nga dem di déposer sa CV ñu jox ko ki nga xamante ne mooy gardien. je pense que gardien loolu du liggéeyam. Mm-hmm. te parfois boo laajee gardien bi da lay wax ne ñoom ñoo ko ko wax. Mm-hmm. yow aussi doo mun a am accès ci biir. Mm-hmm. loolu aussi euh, mu nekk loo xamante ne bëgg naa ñu ñu bàyyi ci xel c'est des méthodes à dénoncer. Mm-hmm. Euh, tey euh, ci au sein du mouvement lan mooy mécanisme yi nga xamante ni da euh, ngeen ko mettre en place pour assurer li nga xamante ni moom mooy transparence par rapport ak yenn ci décision yi nga xamante ni da ngeen koy jël au sein du mouvement. waaw mécanisme yi aussi je pense que néew loo xamante ne sax. am na ci mais juste nekk na loo xamante ni daal objectif yi nga xamante ne moom lañu ñu mettre en place képp koo xamante ne ñëw nga rek euh, fekk objectif yooyu noonu rek mun nañ la yaatal ci mouvement bi euh, wax nga ko sànq nee nga mouvement bi c'est c'est apolitique euh, mouvement bi mouvement boo xam ne dafay yëngatu ci wàllu injustice sociale Euh, tey boo fekkonte ne euh, y a des politiques yoo xamante ni ils ont ils ont décidé de de venir vous accompagner ci li nga xamante ni moom mooy euh, dénonciation injustice sociale bi nga xamante ni yéen a ngi koy a ngi koy dénoncer wala ñëw jàppale leen ci li nga xamante ni moom moo jëm ci ci emploi des jeunes est-ce que tey da ngeen koy accueillir ci ci bras ouvert wala da ngeen koy wax ne carrément que le mouvement c'est c'est c'est mouvement politique. loolu déjà am na sa semaine passé bu ñu amee réunion. Mm-hmm. y a un en informatique. moom day def politique. fii la dëkk Dakar euh, bu mu ñëwee aussi ci réunion bi dama ne ko carrément mouvement bi c'est apolitique boo ñëwee nag par exemple parce que ku ne ak sa bëgg-bëgg euh, mais mouvement bi moom politique bokku ci. en dehors du mouvement képp ko xamante ne bëgg nga politique mun nga koo def y' a pas de souci mais sur le mouvement moom amul politique. au sein du mouvement au sein du mouvement ce qui est politique c' est interdit c' est mhm. ñoom mën nañu def euh, mën nañu def politique. Euh, amul problème mais au sein mouvement y' pas de politique. Mhm. Euh, tey par rapport ak euh, cette cette injustice sociale lan moo ci war a nekk seen seen seen taxawaay euh, surtout ci li nga xamante ni moom moo jëm ci emploi des jeunes parce que souvent gis nañu ay projets yu bëri yoo xam ne état yi dañ koy dañ koy teg mais souvent ces ces dañ koy politiser tey yéen mouvement bi nga xam ne teg ngeen ko c'est pour dénoncer cette injustice sociale moo ci war a nekk seen taxawaay pour que tey programme yooyu ñoo xamante ni dañ koy teg mu bañ am benn politique pour que tous les jeunes méritants ñu mën a mën a mën a jot ci ci ci programme yooyu la waaw loolu diñ ciy taxaw bu baax a baax parce que loolu mooy suñu wareef parce que loolu moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor lépp lu ñuy def pour Sénégal dañoo bëgg Sénégal avancé on est des jeunes on des jeunes tellement euh, expérimentés donc lu ñu war mooy euh, lépp loo xamante ne euh, mettre ko en place aussi ñu jéem koo sàmm aussi parce que loolu mooy suñu mooy suñu wareef mhm. waaw te tey euh, mouvement bi wax nga ko sànq Euh, Kaolack la la la nekk mouvement boo xamante ni mu ngi mu ngi Kaolack euh, tey coordonnateur bi nekk au niveau au niveau au niveau de Dakar euh, fan ngeen di rassembler wu pour bu ngeen waree def seen seen ay activité yu ni mel c'est c'est c'est des activités yoo xam ni da ngeen def des réunions en Zoom wala bu ngeen naree def activité ñi nga xamante ñoom ñoo des membre au niveau des différentes région dañuy rejoindre à Dakar comme ça ngeen mën a def seen seen rencontre. xam nga fu ñu toll léegi léegi monde bi léegi. presque tout est numérique. Oui. donc euh, boo seetloo ñun suñu ñuy sax sur Google Meet lañ koy defee. Mm-hmm. la plupart ki lañ koy defee mais mënul ñàkk nag parfois bu ñu amee activité aussi. Mm-hmm. dañuy mettre en place dañuy dem Kaolack wala ñu xool lieu boo xamante ne mën nañ faa daje ñu def ko mm-hmm. mais réunion yi la plupart euh, dañ koy def sur Google Meet. te gars yi dañuy ñëw aussi participer. lan la mouvement bi jot a defagum euh, ba ngeen ko taxawalee ak léegi et ñaat ba ngeen ko taxawalee ak léegi ñaata at la am la mouvement bi amagum. mouvement bi yàggagul parce que defagul plus de trois mois. Mm-hmm. defagul plus de trois mois. Mm-hmm. waaw quelles sont les activités yi nga xamante ni jot ngeen ko ñun jot ngeen ko euh, développé gum. pour l'instant non non pour les l'instant sax defaguñu benn activité. Mm-hmm. non defaguñu benn activité. donc c' est c' est un boo xamante ni euh, yéen a ngi doog koy doog a mettre en place pour pour pour pour pour taxawal ko par rapport ak li nga xamante ni moo di seen seen activité. waaw ñu ngi koy door a en place. Mm-hmm. di xaar aussi activités yi nga xamante ne war nañ koo def ci kanam tuuti incha allah. Mm-hmm. activités yooyu lan lan lan ngeen ci fas yéenee lan ngeen ci fas yéenee def. activités yooyu aussi dañuy sensibiliser. Mm-hmm. comme ni ma la ko waxee aussi dañuy wàcc si le terrain dem ci dëkk yi. di jéem a sensibiliser ñi nga xamante ne ñooy suñu parent yi. pour ñu gën a yëngati ci wàllu agronomie. ak yeneen euh, pàcc yi aussi. yeneen domaines yi parce que loolu mooy euh, mooy objectif mouvement bi. mais yëngatu ci domaine agronomie sans sans accompagnement également est-ce que jàpp nga ne dana dana yomb parce que mbay léegi dafa am euh, de matériel techniques yoo xam ni daf ko daf ko daf ko laaj euh, bu fekkente ne rek da ngeen di dem sensibiliser leen à que euh, ñu dem ci ci li nga xamante ni moo di moo di secteur boobu lee te accompagnement aussi jàpp nga ne dana am résultat yi nga xamante ni moom ngeen di xaar. je pense que bien bientôt on dañuy am accompagnement. Mm-hmm. parce que nekk na loo xamante ne maanaam képp ku ko dégg da nga koy nawlu aussi. Mm-hmm. parce que lu baax la. parce que newuñ fii pour yàq newuñ fi pour leneen mais dañoo nekk fii pour defar réew mi pour parce que parfois euh, dañu am problème aussi euh, état mënul def lépp ñi nga xamante ñu ñu ay jeunes aussi il faut ñu wàcc sur le terrain waaw parce que la réalité ñun ñoo ko xam ñi nga xamante ñoo nekk si le terrain ñoo ko xam donc li nga xamante ne nag moom lañ gis ci terrain bi aussi euh, muy dëgg wala du dëgg lépp ñu dem a xool nuñ koy rafetale ba mu ba mu rafet parce que ñun ñoo nekk ci terrain bi te loolu aussi dañ koy war a bàyyi xel bu baax a baax. ban appel ngay lancé mouvement bi pour ko ñu jeexal li nga xamante moo émission ban appel ngay lancé li nga xamante moom moo di mouvement bi mais également ñi nga xamante ni bëgg nañu accompagner le le le mouvement en dehors li nga xamante ni moom mooy di les aspects politiques. oui euh, képp koo xamante ne aussi euh, pare nga rek pour accompagner mouvement bi aussi ñu ngi lay xaar. parce que ñun loolu moo ñuy aussi bokk na si objectif yi. parce que tey euh, comme ni ma la ko waxee rek comme am na dans tous les domaines presque am nañ ci ay spécialistes. Mm-hmm. donc pour pourquoi pas képp koo xamante ne pare nga pour même bu nekkee sax offre euh, entreprise nga yore. Mm-hmm. Euh, nga soxla ay ay ay ay éléments aussi. Mm-hmm. boo ñëwee dañ lay jox ay éléments. parce que bëgg nañ ay partenariat ak entreprise yi. société yi. donc da ngeen am des des des jeunes yoo xam ne déjà ñoom da ngeen yor seen i CV ba ba pare. au cas où bu bu amee des des des emplois yoo xamante nii war na am comme ça ngeen man leen ko mën leen ko déposer. suba suba ku soxla woon ay ay ay ay sax ñu jox la. Mhm. parce que ñu yor ñoo xamante ne euh, dans tous les domaines ah. électromécanique euh, mine. Mhm. Euh, agronomie tout. képp koo xamante ne pare nga soxla nga lii rek mu dañ lay jox ay éléments. voilà ñu ngi lay jaajëfal kon ñu bàyyi la nga tàggu ak mbokk wentox na di. ok maa am kontaan aussi ci li nga xamante ne mooy émission bi. Mhm. Euh, di lay jaajëfal bu baax a baax mhm. aussi. Mhm. di euh, jaajëfal ñi nga xamante ne moom laa bokkal euh, mouvement bi aussi. gis naa seen taxawaay ak seen détermination. waaw ñu ngi lay jaajëfal di leen encouragé ah parce que ay ndaw ngeen te peut-être am na ci loo xamante ni bëgg ngeen ko am ngeen ko yéene def ci ci ci réew mi surtout ci ci côté ndaw ñi ñu leen di encouragé bu baax a baax di wax également ñi nga xamante ñoom ñoo di. Euh, les ONG ak yooyu yëpp ñu mën leen accompagner ci li nga xamante ni moom moo di euh, liggéey boobulee jaajëfal ko bu baax moom Diamane Gueye activiste coordinateur national du mouvement espoir et transparence moom lañ doon dalal ci li nga moo di jotaay waxtaan bi jaajëfal bu baax a baax ñi doon teewlu li nga xamante moom moo di jotaay bi euh, jox leen dig daje ci yeneen jotaay bàyyi leen ay wéy di topp suñu ay programme ci Télé Sénégal di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax jërë ngeen jëf